Abonnez-vous sur la chaîne Equivox TV pour une exclusivité de l'actualité et n'oubliez pas pour ne rien rater. le 27 octobre ci atum 2016 kii di useeni Diop di commerçant jàppante woon fi ak ab man buy wuyoo ci turu Ibrahima Samb ci biir jàppante bi nag kii di Ousseynou Diop dal di génne ab goon doox ko ci bopp ki nga xam ne moo di taximan bi bam jaaree fa ñàkk bakkanam kii di Ousseynou Diop nag. dinañ ko àtte tey ci chambre criminelle bu Dakar waaye ba tey ñi di taximaan yi ñu ngi naqarlu bi la ñaaw def tey ñaan rek yoon def liggéeyam. man daal jàngat bi ma ci def mooy na justice def yoonam liggéeyam rek waaw parce que ñun chauffeur taxi moom dañoo tumranke trop ci Ndakaaru parce que amuñu ku ñu jooyal amu na ñu defal dara syndicaliste yi ku ci ku ci commencé jóg ci garage yi ngay dem ñu jàppale la bu la jàppalee ba nga xaw a dëgër nga dem jaay nu amuñu ku ñu di leen ñaan daal ñun Macky Sall lan mën a ñaan parce que mooy suñu président na siis def liggéeyam nañ ko siise teg ko ci yoon su waree tëdd cinquante ans na tëdd cinquante ans su tëddee su waree tëdd ans na war tëdd vingt ans parce que Ousseynou xale bu ndaw la moom la yaayam amoon moom dong mu am jabar yor yor benn doom di góorgóorlu pour yaay pour yor yaayam ñu ray ko ak lu mën a am même buñ siise woon waa ji cent ans yaayam ñàkk na te lim ko rey mooy affaire de réewande jël bal di dóor mel ne ku nekk Amérique wala ku nekk Afrique Sud loolu a pas normal taximan nag ñaaroo ko bëgg euh, jabaram mhm. ak ay doom ak yaayam mhm. waaw ba ci client yi nga yem sax pour ñu respecter la mhm. problème la. waaw man waaj sax xaw ma ko man dama ay clients yoo xam ni man ko ak yàlla dogal na bari na ñu ma xamanteel ci ay clientes ñu bari xamant ne noo gaayan bi ko rey day jël day jël alcool ci loolu lan moo wax man wax dëgg yàlla man xaw ma waaj mais dégg naa day jël alcool te def na ko affaire réew parce que. ñoom ñaar seen problème dafa yàgg parce que ñu ngi commencé collège Sacré Cœur bi ñu commencé ba Yoff mu doog ko fay rey ci liñ ma net li ma ko topp moon seen gannaaw xaw ma la moo moo bi ba Yoff mu rey ko waaw taximaan nag man li ma leen di doole conseil bu fekkee déw leen ko mooy ñu bañ di topp histoire parce que ñoom da ngay am say waajur nga bàyyi leen dëkk ba ñëw fii pour liggéey kon ñoom leen war mooy ay histoire ñu di ko moytu parce que histoire am benn njëriñ soo gañee sonn buñ la gañee nga sonn kon ñu di ko moytu ñun ay kaw-kaw lan amuñu doole li indi Ndakaaru mooy xuslu ku ci liggéey ba am dix mille francs sax da nga dem ci wari ko mu dem dëkk ba kon nag suñ mën suñ suñ mënee moytu di xeex amul benn njëriñ mi ngi nii rey ko ak lu mën a am mooy perte na doo déggoo benn syndicaliste waxal defal dara loolu mooy problème bi loolu maanaam boo ma ci laajee man dama ci maanaam dama ci sawar tontu quoi ndax euh, doomu aadama maanaam bakkan daf fort quoi waxuma sax euh, concernant maanaam taximaan rek mais bakkan ci boppam moo fort ba nga xamante ne kenn amul droit rey kenn waxatuma la nag koo xamante ne xëy na da ngeen jokkalante ay kaddu nga génne sa pistolet na noo boo waxee ma rey la mu wax nga nekk koo xamante ne da nga ko rey kooku normalement man su ma ko sañoon personnellement su ma ko sañoon dootul génn kaso waaw te itam euh, après loolu man ci sama gis-gis mooy yàlla suñu borom li nga xamante ne moo ñu bind moo ñu gën maanaam moo ñu ëpp yërmande te waxul kenn ne am nga droit rey sa morom kon normalement ate bi nga xamante ne moom la ñu yàlla jox muy suñu diineeg lépp normalement ate boobu la ñu waroon appliquer mooy ku tey rey nit ñu rey la man loolu laa d'accord vraiment daal bu ma ko sañoon kooku xëy na ñun taximaane sax waroon xëy na man maa ngi soog a yëg ne waajooju tey lañ koy jugé parce que xam nga ñun liggéey bi daf ñuy jàpp ba nga xamante ne yu bëri duñ ko mën a xam ci dëkk bi ko ci côté média bi ak yooyu mais normalement kooku ñun taximaan yëpp dañoo waroon a taxaw tey tribunal wane suñu naqar vraiment daal loolu moo ñu gënaloon quoi. loolu lu am la loolu lu am la ci tali bi mën naa ne dem nañ ba man xaw ma lu tax loolu. te taximaan ku ñu waroon jox cër la ndax liggéey bi tey boo xoolee gan bu ñëwee ñun ñoo koy dalal bu waree déplacé wu ñun ñoo koy yóbbu fi mu war a dem mais euh, gis naa ne daal ñun lañ jàpp ne ñun ñooy nit ñi nga xamante ne xëy na jubuñu maanduwuñu wala euh, fuñ ñuy maanaam fuñ ñuy dëkkalee daal fuñ ñuy dëkkalee vraiment affaire boobu daf may naqari. waaw ah, ba lépp lu ñu def rek ñoo noo taximaan yi la taximaan yi la taximaan yi te fekk yàlla xam na ne taximaan yi presque mën naa ne bu ne téeméer lañu mën naa ne euh, quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay nit ñu jub lañu ay nit ñoo xamante ne dañu njaboot comme ñëpp di daan seen doole droit yi nag moom mën naa ne gisuñ ci suñu bopp waaw ndax tey euh, ci sama xam-xam bu gàtt dama jàpp ne mën naa ne bu ci tali bi boo demee ba ñu na da ngay dagg droit de stationnement ci taxi normalement war nga mën a client arrêté la ci tali bi nga droit sa oto jël ko mais loolu dem nañ sax ba léegi presque mën naa ne ñu ngi koy commencé ñàkk foo taxaw léegi xam nga alkaati yi ñëw jàpp la waaw affaire bi ñu métti la daal vraiment ñun daal bu ñu ko sañoon ndax ñu jox ñu cër daal. ñax xam-xam am na fa waaw foofu ñax xam-xam am na fa ndax euh, ci li ngay liggéey ci nga war a mën a jaamu yàlla suñu borom. en même temps da nga ci war ànd ak yar ndax nit ki nga xamante ne xam nga moomoo ko juróo ko la maanaam la ngeen war a seq euh, mayoo ko ko kooku vraiment dama ne am na neneen loo ko war a accueillir lu dul mu ñëw ngay xuloog moom wala nga koy jaay naqari man vraiment personnellement man du ma ko def man damay yëpp ay clients yu bëri di leen waxtaanal parfois bu ñuy wàcc sax ne ma non taximan da danga baax parce que da nga mën a waxtaan. di ko métti quoi ndax taximaan yi moom sonn nañu si côté yëpp am na yoo xam ne itam xanaa yëpp yëpp ngi si yoxo yoon quoi dinañ ko bëree yoon quoi mais ñu ngi ñu ngi koy métti ba bés ñi tey ñu koy métti quoi taxi <coughs> comment faire ni ñu koy waxee rek yéen comme amuñu yeneen kattan yi ñu ñu jiñ taximaan yi ne ak benn wax woo xam ne itam tan na suñu xol daal war nañoo mën a dox dégg nag ndax suñu doomu réew mi yañ amuñu di suñu métier suñu métier si mhm. si ñu suturoo suñu njaboot ak suñu dëkkandoo ak ñi ñu war a teral quoi moom la am daay. li waral bile ñaawteef nag taximaan yi jàpp na rek indiscipline bi mi ngi féetewoo ci côté ñi nga xam ne ñoo di clients yi waaye ñenn ci ñoom it jàpp ne am na taximaan yoo xam ne joxuñu benn cër ñi di clients yi. man ñaari côté yëpp mën naa wax euh, d'une part. nit ñi respecté wuñu taximaan yi mais taximaan yi d'autre part tamit respecté wuñu nit ñi parce que da ngay xool sax tali bi ñoom bon da ngay ñëw sax ñu bëgg a ñaaxante ak bi nit ak tànk ak nit am na affaire yu bari yoo xam ne gis nga buñ la koy def ci mbedd mi taximaan yi la ko def mu lay metti amaana mun nga ñëw nga tasante ak moom euh, ci station mu demee fa noonu mais ak lu mu mënta demee man je dis que ni ray waru fa woon am ray waru fa woon am donte taximaan yi respecté wuñu nit ñi nag mu ko nëbb ñenn ñi sax laay wax ndax dama wax ñëpp ñenn ñi respecté ñu kenn ah ak lu mu métti métti métti métti rey war fa woon am man d'après man man loolu laa gisoon foofu. boobu tamit wax ci dina xaw a métti parce que xam rek yaa ngi ma mais aussi benn affaire am na comme que rey moom dafa nekk loo xam ne dañoo teg loi ne ku rey dañ lay jugé maa ngi jégalu fi wax ji mais pour man nag. Euh, loolu moom justice moo war a def liggéeyam foofu noonu nga parce que loolu moom moo gën quoi ñoom ñoom ñoo war a def seen liggéey ñun toog diglu lañ ci am waaw. peine de mort <laughs> kon dëkk bi jeex de. waaw waaw kon dëkk bi jeex taax barki yàlla dëkk bi day jeex taax. dëkk bi day jeex taax mais tamit d'autre part tamit bu ko defoon nag man xam naa ne rey na wa rey na jeex taax. mais instant bi bu fekkee fii nii instant bi lañ ko bëgg a appliquer ci ñi rey nii dina tal trop mais loi boobu nañ ko voté ku rey ñu rey la. bon est bi juge bi nañu def leen seen seen wareef rek est bi nii mooy loolu quoi dëkk bi xam indiscipline indiscipline totale moom lañu mën a wax quoi moo fi am quoi donc euh, mën nañu wax ne tamit xam nga juge yi tamit war nañoo mën a def seen seen seen kii tamit seen seen liggéey te benn instant tamit xam bu ñu mënoon a teg pen de mort tamit xam nga mooy gën quoi parce que. tamit rey bi dafa bëri quoi si biir dëkk bi te damaa xamul lan moo ko waral tamit xam nga affaire lépp reywande la quoi si benn si benn instant nii xam nga loolu loolu moom war nañ see mën a jóg quoi war nañ see mën a jóg xam teg tamit xam ay charte yoo xam ne day day day day méngoog ak suñu kii quoi ak suñu suñu réew suñu nee quatre-vingt-quinze cent yëpp ay musulman lañ xam nga si li ñu wax donc war nañoo mën a teg xam nga charte d'islam ku rey tamit ñu rey ko comme waa Arabie Saoudite li ñuy def xam ñu def ko mu jaar yoon quoi parce que suñu baay nii mi nañ nañal affaire yi ni xam mooy loolu du dem fenn. non fii moom fii moom fii moom indiscipline totale la ñu xool boo jàngee code boo xoolee boo jàngee ñi jàng yëpp code de la route du nga ko si tali bi moom moo ma jaaxal xam nga du nga ko du nga ko si tali bi réewande yi fii saaga yi fii xam nga boo jàll sax passage piéton booy jàll. au moins ñu may la nit ñi sax mu jàll mais non non gars yi njëkkante di mooy mooy loolu quoi dëkk bi xam nga c'est n'importe quoi moo fi am. gars yi waaw taximaan yi client yi tamit teg am na taximaan yoo xam ne ñoom dañoo jub mais am na taximaan yoo xam ne moom mooy loolu réewande total da ngay ñëw dugg si benn taxi saa waay téye cigarette di tux affaire yooyu noonu. xam nga te yow doo ko nangoo doo doo ko sañoo wax dara boo ko waxee dara mu ne non yaa dugg sama oto xam loolu tamit xam nga loolu rafetul xam ak naan bi si boppam xam nga taximaan yi xam ne da ngeen naan téye seen volant yi di daw leen neex wala ñu dugg si benn koñ mu leer na fii ay booy dañ fi dañ fi faral di daw ak yooyu noonu mais dañ accéléré oto bi xam nga def leen neex xam nga te loolu tamit. damaa xamul fa lañ ko teg quoi. voilà chers téléspectateurs d'Equivox TV lii lañ leen indiloon ñu ngi leen di jox dig daje beneen yoon ci